Khady Sow dëkk fajaa ba ma sëysee fii ba léegi Dakar laa jóge ñoo sëysi fii ndox mu su fi am ba ma sëysee dañuy yeewu suwaat boo yeewu 4 heures du matin di xaar ndox bi fajar gi doo am ndox te bu ñu 4 heures bu ñëwul oto ndox yi dañuy ñëw fii rangare yi fii buuxante yi fii nga yore doom boo yeewoo nga war a sang sa doom war a doo am ndox fu nekk ngay dugg di dem wëri ndox di lii lii daa métti nañu dimbali si ndox bi seen o bi fi Sénégal kii bu fi nekkoon sax moo gën seen o ndax bii ba mu fi bu bees bi ba mu fi duggee ba léegi ndox amuñu ko dañuy fay facture te gisuñu ndox bu ñuy fay dañuy root ba dee te gisuñu ndox gisuñu lii facture yi ñëw ñuy fay te gisuñu ndox gisuñu dara dafa métti nañ ñu dimbali si ndox bi sonn nañ torop ndox doom bu góor la fi kay dañoo sonn balaa ñuy gis ndox dañuy dee dama boot sama doom wàccee ko ne damay damay togg balaa may togg 4 heures wala 5 heures ndax nekk di wër ndox wala bëgg a fóot wala bëgg def raxas wala def dara da ngay wër ndox ba sonn ba ma sëy see fajaa fii 2017 ba léegi mosuma fi gis ndox chaque jour bu ma yeewoo damay xëy di dem uti ndox ba juillet kon dañuy dee xanaa bu demee ba juillet ñun fan lañ jëm naw kër yu tilimax yu kër yu salte ndax dañu am ndox bu ñuy liggéey ak ah, mbas bi feebar bi nii di tere mbooloo bi te lii mbooloo bi nii du indi feebar te ñu ngi tere mbooloo bi te mbooloo bi nii di nii bu ñu bu ñu indi woon ndox yi ku nekk toog sa kër mbooloo bi fii dañu fekk dégg nga suba si doo am ndox fenn doo am ndox ba pare facture yi dañuy ñëw nag ngay fay par force te ndox amul merci beaucoup